نجدد سنته فلا وإني أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنته فلا وإني xam nga lu ma bëgg lu ma leen di wax damaa gént gis sëriñ Seex Xaddi mu ne ma sëñ Kara ma ne ko Mbàkke mu ne ma yow ak ku lay yaakaar ma ne ko xaa mu ne ma raw nañu adduna ak àllaaxira waxoon naa leen li ma li ma leen bëgg a wax su ma leen ko waxe baas bi dana tasaaroo gént la nag gént la gént la dama gént sëriñ seex sëriñ seex xaddi ma toog mu toog mu ne ma sëriñ Modou Kara Sylla la ma ne ko Mbàkke mu ne ma raw nga yow ak ku yaakaar te moom bi muy dund lu mu waxoon Modou ma ne ko Mbàkke mu ne ma saxal naa lay béjjéen daanal ku la neex lii sëriñ bi wax li ma ciy seere sëriñ bi dafa maa yónni ci Baye Cheikh Khady ma yóbbu àddee jam ma jox jébbal ko ko ba noppi Baye Cheikh ni ma Cheikh ma ne ko Sylla mu ni ma Cheikh ma ne ko Sylla mu ni ma am garaam bu bii soo demee na ko jox sëñ Modou Kara te boo ko ko joxee nee ko na ma ñaanal ma ñëw yëkkati mbubb moomee jox ko sëñ Kara ni ko Baye seex nee na nga sol mbubb mi ba pare te na ko ñaanal ndax moom de leer na Thierno Ibrahima Faty ni moom mooy Thierno te yow loo ñaan mu am kon si la taalibe yi ñoom lay yalwaanal lott nañ la te li leen lottuloo du ci kenn ci ñun ñii la waaye du ci yow mii ndax bu ñu fàttalikoo bis bi nga xamante ne bii ñoo ñëwal suñu bopp ni la sëñ Modou nga ne Mbàkke ñun la ñun da jébbal nañ la suñu bopp àdduna ak ñaari baat la. ni la loo ñu wax danañ ko def loo diir bu gàtt lañ fa toog tàllal lay loxo ni la sëñ bi ñaanal ñu dañoo bëgg a yeewu dem yeewee ko dem ca kër ga commencé nañ tebbi lañ waxoon waaye ñeenti baat ya ñu waxoon taalibe bu jébbul bu nekk te wéyal ko foo bëgg a yegg da foo yegg ndax ku matul sëriñ Touba doo doon Serigne Touba kon sëriñ bi yàlla na nga fi yàgg ci yow te barke borom diwaan. waaw damay wax nit ñi ne leen bu ngeen gisee ma bëgg sëriñ Touba ak njabootam bi li ma Serigne Touba defal rek moo tax man de ab sëtam ak doomam akub seexam luñ ma def baax dama leen bëgg ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa waaye ku dul ñoom rek ku dul ñoom nag bu defante jotee rek ma defante ko ak yow <laughs> bi ma bi waxee loolu mu mel ne du gént ndax man ndax ma booba maa ngi nelaw ndax nelaw naa man yaakaar naa man nelawuma kon nag dama leen a bëgg a wax nele leen man li ma am ñi ko am bariwut maa baaxi taalibe baaxi doom baax baaxi soxna baaxi xarit màggal gu toll nii nga ci ay giléem yu bari nag yu bare xar yu bari ganaar yu bari ndugg mu bari te génnewoo ci sa poos ñi ko man bariwul kon sëriñ Xaadim Njaay su fekkoon man maa yàlla te nekk yonent bi wala ma nekk Serigne Touba tey tey tey tey adduna dama leen koy soppil ajana waaye duma yàlla duma yonant bi duma sëriñ Tuubaa xay na mënuma ko waaye ma ñaan bis bu set ngeen di ma gën a bëgg bis bu set ngeen di ma gën a bëgg te man dama natt saa bopp di ko xool li ngeen ma bëggee sax xaw ma ko dam ne sëriñ bi yow yow nu nit ñu naa la yow a yow nga ne ko yow nu ne la yow yow la gis yow la nu xam man Serigne Thierno Diouf Lambaye murid saadix kooku rek laa def mu nekk sama royukaay dafa woote gàmmu Lambaye ba guddi gi xaar rek mu daanu mi ngi def fëlëñ di yuuxu fëlëñ fëlëñ ñu di ko mbës ba mu jiif aar juuf lii la mu doon mu ne xanaa mbooloo mu toll nii koo woo ne juuf te xamul lu ñuy juufee boo ko bëgg sëñ bi dafa waxtaane sëriñ ma paate mën naa koo def waaye dégg ngeen ba tàyyi waaye moom du jeex waaye li ma jaaxal daal man nga xam ne wallaahi asim ku andib kaamil ma waat mooy yéen seen baax gii ndax ñu mel ne yéen kenn am na Mustafa nawaytuma yujaddidu sunnatu fadawa ilni amadu